mën nañ jàpp si ñaari région yi Tamba ak Kédougou am nañu ñaar fukki tool toolu jën ak juróom euh, boo demee Kédougou am nañ fa juróom-ñeenti tool li ci des mu ngi nekk ci région de Tambacounda euh, ci ñeenti département yu nekk région Tambacounda. Euh, boo demee Kédougou mën nañu jàpp ne li gën a bëri ci ferme yi département duggu la nekk mais am na aussi yeneen département yi mel ni sara yu am ay ferme

Euh, am na at ci kanam li fi li fi jot a joxe matuloon euh, ñaar fukki tonnes ñu ngi ko xaymaa si fukki tonnes ak juróom. pour implantation ferme yi li ñu si mën a jàpp mooy li gën a bëri téeméer boo jël juróom-ñett yi nguur gi dugal na si loxoom pour ferme yooyu juddu li ci des nag am na ay partenaires yu jàppale nguur gi ay projets acteurs yi aussi dugal nañ ci seen loxo pour que ferme yi mën a juddu. Euh, ci toolu jeun yooyu ci ñaari région Tamba ak Kédougou mën nañu né euh téméri nit ak ñeent fuk ak ñent ñoo ci liggéey ci chiffre bobu mën nañ japp né téeméeri yo jël juróom ben fukk yi ak ñent yi ay jigéen lañ li ci dess di ay goor njaayum jeun bi ci région Tamba ak Kédougou euh mënuñu ci am jafé jafé bu tax ñuy wax parce que fiñu nekk sori na géej trop donc dex bee fi nekk donc pour dire que nit ñi li ñu soxla ci jeun yépp amuñu ko donc li ñu fi jot a récolté pratiquement nit ñi ñu ngi koy jaay sans problème bu tax ñuy wax maintenant si côté njëg li euh, bu ma jëlee exemple Gouloumb nga xam soriwuñu dara mu ngi à 30 km de fii Gouloumb ñu ngi jaayee jën bi ñetti téeméer kilo bu nekk donc jàpp nañ ne cherul trop parce que jën bi ñu lay jaay ñëpp xam nañ jën bu bees la amul problème conservation dañ la koy jaay muy dund donc jën boobu qualité bi jàpp nañ baax na trop donc jaar na ko jafé jafé buñu am moy acteurs yi ñi def pisciculture amuñu organisation euh, bu nguur gi reconnaître mais agence nationale de l'aquaculture et mu dox na ci tank yu am solo ba tax na instant bi région bo dem euh, ñu ngi installer les l'association régionale régionale ci ñi def pisciculture ci réew mi donc japp nañ ni ñaari contrainte ñaari jafé jafé loolu la won té ñoo trouver solution.